de savoir la, les conditions des bénéficiaires. Monsieur le ministre, nous déplorons le manque de transparence. Au départ, le délégué avait annoncé la mise en place de guichets uniques dans chaque département pour le dépôt, mais aussi d'un comité de sélection et de suivi. Depuis lors, monsieur le ministre, gisuñu dara. Monsieur le ministre, euh, délégué DER bi nee na financé na dans la seule région de Dakar 15 milliards nee na si financé na ci Sénégal 57 milliards monsieur le ministre de mon point de vue 57 milliards fu ñu ko financé war na am yoon war na am trace war na am impact ma doon laaj comme que moom nee na parce que ay responsable jeune ay responsable femme laaj nañ ko liste bénéficiaires yi même dans les localités comme que joxewu ko ma doon la laaj comme que dañu évoqué DER bi ci considération générale bi parce que dépense commune yi laa doon xaar ma doon la laaj est-ce que moom mun na joxe bénéficiaires yi parce que li ci gën a métti ci communication yi mooy bi mu demee Mbour nee na ñi mu financé ñoo jël gaal gi loolu moom mu nekk lu doy waar parce que ñooñu lu ci bëri dee nañ te mënatuñoo tontu waaye nag dañu bëgg a xam. 57 milliards yi fu mu jël fu mu jëlee jeunes yi ak fu leen yóbbu parce que man loolu laa doon wax dama ne nañu évaluer financement bi bu ñu identifier projet bi ba pare nañu éva nañu nañu évaluer financement bi def étude d'impact seet ban niveau la jëlee kii ak ban niveau la ko yóbbu parce que tey jeunes yi ñu ngi nekk dans le désarroi non seulement DER bi daf leen mbas parce que seen espoir dañ leen ko jaayoon ñu gëm ko gisatuñu dara non seulement mbas na leen ci atum mbas mi. waaye nag wax dëgg yàlla dellu nañ ca mbënn ma donc euh, mbëkk mi rek moo ci des kon monsieur le ministre yaakaar naa ni désespoir boobu ñu am war nañ tax aujourd'hui laaj ay compte parce que man fii laa ko waxee woon te monsieur le président du ma magum xamoon naa ko dama di magum waxoon naa ko fii laa ko waxe woon kon fii laay dellu si waat ñu laaj ay compte parce que aujourd'hui xale yi mooy problème bi nee nañ emploi des jeunes mooy problème mu Euh, euh, gouvernement bu nekk mais nag wax dëgg yàlla jaay ngeen ñu deer bi d'accord nañu donte ni ne woon nañ entrepreneuriat rapide jaaxal nañu parce que entrepreneuriat da nga war a def ay projet entrepreneuriat da nga war a def étude seet les projets porteurs seet cibles yi cibles yi ñan la waaye nag dañu gis une gestion partisane dañu gis ay nit ñoo xam ni dañ naan li ma amoon ci deer bi jox naa ci samay militants